bismillahi irrahmani irrahim wassalatu wassalaamu ala alhaadi al amin sayidina muhammadin al makin wa ala alihi wa sahbihi zawi ridwani wa tamkin mbokk yi noo ngi leen di nuyu di nuyu bokki tali bi déglu ñëpp uh, kon ci noonu ko sëriñ Asan waxee rek foofu nu toll woon uh, ñuy wax ni uh, li xikma ci jàng siira yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mooy xikma bi nekk ci xissa yi yàlla di nettali yonente bi sallallahu alayhi wasallam ci alquran alquran xikma yi ci euh, xissa yi ci yàlla di nettali dafa am lu tax mu di ko nettali yonente bi lu tax mu di ko ko li mooy bëgg nit ñi def ko ak waarukaay gu ñuy waaroo def ko ab seetu bu ñuy seete bëgg it nit ki di déglu xissa bi euh, jàng ci tayam ndax da di yoon wi nit ki jaaroon fakk talu ca nga topp ci ginnaawam gis ne fakk talu na loolu dana la wan aw yoon ba boo ñëwee fa mu fakk taloo nga mën ko moytu yoon wi nga xamante ni nit ki bi mu ci jaaree jaar na ci ba àgg fa mu jëm te amul benn jafe-jafe loolu dana la dimbali yow mi topp ci ginnaawam ngir nga mën a jaar ci yoon woo xam ne yoon wi amul ay pakk amul ay jafe-jafe kon xissa yi yàlla di nettali yonante bi ci alquran loolu yi mooy xikma bi ñu itam bu ñu di jàng siira yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dañuy bëgg xekk ma boobu yi am ci waaye du càggee ni dañu koy wax rek mu doon waxtaan wu ñu toog waxtaane ko nit ñi déglu ko mu neex ñoom ñu dem mu jeex déedéet dañoo bëgg di jàng jaar jaari yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ngir di xool moom yonent bi ana nan la daan dunde tàmbalee ci ak ndawam ba ci ak magam nan la daan dundee ci biir société bi mu daan dund nan la daan dundee wàllug euh, économie nan la daan dunde jëkk yàlla di ko terale yonent gi mu ko terale ana ginnaaw bu mu ko teralee yonent googu lan moo soppiku ci ab dundam nan la daan doxe ak mbooloo mi mu nekkaloon ci jikko yu rafet nan la fekkoon monde bi moom yonent bi sallallahu alayhi wasallam bi ko yàlla yónnee nan la doon fexee ngir soppi mbooloo moomu ci jikko yi ñu daan dund te dëppoowut ak jikko yi yàlla bëgg ci kaw suuf ana ci yan pexe la jaaroon ngir soppi loolu ana fan la jaar ba gindi mbooloo mi mu gind ba jamono bi ñu toll mën nañ ni jullit yi mat nañu un milliard et quelque ñëpp di jub ci jubug yonante bi sallallahu alayhi wa sallam ana fan la yonante bi sallallahu alayhi wa jaaroon ba liggéey liggéey bu réy boobu yonante bi nit mënta ñàkk ñu ko contre ñi nga xam ne dañu ko weddi woon ana nan la jëflante woon ak ñoom ñi nga xam ne dañoo nangu wuyu si ab wooteem ana nan la jëflante ak ñoom ana lan moo xàjjale ak yonente gu jóge ci yàlla mi nga xam ne hakim la alim la te li muy indi lu luy nuru ay neen du ko jaare ci kanam du ko jaare ci gannaaw ana lan mooy xàjjaleeg diggante nubuwaat yooyu ak falsafa yi nga xam ni moom la mu fakkiroona yi tërale seeni eh, donteenu àddina maanaam lan moo xaajale diggante ak nubuwa ak xalaatu doomu aadama bu bu am xalaat rek di tër yooyu yëpp eh, lu ñuy jàng ci siira yonente bi sallallahu alayhi wa sallam donte du dikk eh, tey du matale tey jiit ci dërs yii ci kanam danañ ko ci jàng ci biir dundam boobu moom yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ñu tàmbalee ko ci ba muy doon gone gu tuuti wala sax ba muy doora a juddu fi jaar ci ak ngoneem e, ba ni ko nubuwa gi ñëwale ba nim ci ko dunde ci njëlbeenu màkka ni mu demee madina ba ni mu wujjee boromam bisam yu mujj yooyu yëpp danañ ko jàng ci siira yonente bi sanson waaye lu ci maa doon dafa am luñ ci jubloo jànge e, ci li ñu jàngoon ci ginnaaw muy tàmbalee ci marxala fi mu juddoo ba fi mu gàddaay e, ñu bëgg cee génnee ay dërs ay dërs yoo xam ne day am luñ ciy jàngate jubluwuñ sax ni dars yi danañ mboolem li ci nekk ci luñ ci war a génnee danañ ko mën a génne de suñu xel du matale lool waaye ci kem li yàlla li nu yàlla xéewale ci ak dégg danañ ko ci génnee leeral ko nit ñi li ci des ñu bàyyee ko mbokk yi kenn ku ne boo dégloo siira bi du ñàkk sa dégginu bopp woo ci dégg mën naa am sax nga dégg ci junni junni déggin yu ëpp déggin yi ma ci dégg ndax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ni rubba xaamili fiqhin ila man huwa afqahu minhu nit ki mën naa yor a fiq yóbbu ko ci kooku ku gën a dégg kon damay indi fiq bi waaye maa ngi am yaakaar bokki jullit yi déggin wi ma ci am ñu dégg ci déggin yu ëpp yooyu ba njëriñ li mën a gën a mën loolu rek mooy yéene ci ñu tàmbalee ci tomb bu am solo muy mboolem historien yi ak bindkati siire yi dañuy tàmbalee ci di tudd askanu yonente bi salallahu alayhi wa sallam te loolu dafa yell ci sàkkukatu xam-xam bu ne mu am ci ab gis-gis am ci ab settantal ndax bu ñuy tudd yonente bi tàmbulee ci tudd aw askanam ni mooy muhammad ibnu abdillah bin abdil muttalib ibnu hashim ibnu abdu di ko topp ba ci ñaar fukkeelu maam ak benn foofu ñu yem yonente bi moo daan tudd ay maamam bu masaan agsi foofu yi ci Adnaan fi la daan taxaw daana leeral it ne Adnaan moomu ci walad bu Ismaayil ci la bokk waaye bu ca masaan agsi nag day taxaw ni kasaban nasaaboon daane waaye nag kate askan yi nag mën nañoo fen foofu rek lay yem ñu dégg ci ni kon li tàmbalee ci Muhammad ibn Abdillah ba ci ñaar fukkeel bi ak benn ci ay maam loolu moom leer na nattab li amu ci waaye nag la ca tàmbalee ñu di kon tudd ba ba muy ci aadama loolu moom ay lënt am na ci mën naa naa bañ a ci lan la yonte bi daan li ma jublu rek mooy lu tax historien yi ak bindkati siré yi di tàmbalee ci tuddu ay baayam ak maamam ndax loolu euh, mën naa yóbbu lenn ci nit ñi mu indi leen am lënt ci ñu jàpp ni aw askan dafa bokk ci euh, diine dafa doon loo xamante ni lu ñuy xalamaale la ci diine Euh, ndax euh, kii boobu ñu ko jox ndax gëdd ko jox te fekk euh, xalaat boobu rek moom la islaam ñëw ngir màbb ko islaam dafa ñëw ngir màbb ni aw askan taxawut li taxaw dëgg dëgg mooy gëm yàlla ak ragal ko ak jëf yu baax wax ci alquran ni yaa ayyuhan naasu inna xalaqnaakum min zakarin wa unsa yéen nit ñi de dañu dañu leen a bind ci góor ak jigéen wa jaalnaakum shuuban wa qabaa'ila def leen ngeen di ay peuple doon ay kiir waaye nag lépp li temps arafo ngir ngeen xamante loolu la ci jublu ngir nit ñi mën a xamante gi mën a jàppandi moo tax mu xaaj ko ay xaaj noonu def ñi ñu bokk gën a jege wante waaye ñëpp ay doomu aadama la ñoon mu ne nag inna akramakum indallahi atqaakum ki gën a tedd ci yéen mooy ki gën a ragal yàlla ci yéen kon loolu yi mooy li ñor diine eh, léegi nag yonente bi dikk ni laa fadla li arabiyin ala ajamiyin illa bi taqwa ab arab gënewul ab ajam dara lu dul ci ak yàlla baaxub doomu aadama dañoo baaxoo di ndamu ci ay askan nga xam ne kenn ku ne askan wa nga askanoo da nga koy topp di ko taqdis di ko sellal di ko fóorise fóor boobu nga xamante ni yàlla fekk na ko nit ñi di ko dund mu mel ni dafa doon seen aada ju ñuy dund moo tax mu tànn yonente yi ci néeg yi gën ci néeg ngir buy euh, indi ak nubuwaam it fekk na lañ la nit ñi doon xool ci ak tànn moom fekk loola jëkk na ko tànn ba noppi muy boole na ko ci askan yéen nit ñu tànn nii ñooy askan yi gën mu tànn ci ay yonent waaye bi mu leen ci tànnee lépp ba noppi nag da leen a defal ci ay jikko ak i melokaan loo xam ne la la ñuy rawee nit ñi ba nit ñi mën leen koo roye kon li tax bind kati siire yi di tàmbale ci loolu yonent bi daan ko tudd euh, loolu mooy nit ñi lañu fekk ñu gëm loolu gëm aw askan di ci sukkandiku di ci ndam yàlla won leen ni leen kii ma yónnee nii ci ñi gën ci ñi ngeen di tànn ci laa ko tànn léegi nag door a indi nag la ko ñor def ko ci moom mooy jikko ju rafet ak i melokaan ba nit ñi man koo roy kon loolu dafa doon tomb bu am solo boo xam ni euh, leeral gi da cee baax ndax nit ñi man cee yeewu man cee yeete euh, bañ bañ a tarxiis di dugg ci lenn ci euh, yoon yi nga xam ni Euh, lenn ci lenn ci arab yi ñoo koy sos ñu di ko tuddee al qawmiyatul arabiya am na ci ñoom ñoo xam ni euh, lépp dañ koo tënk ci ak arab ba àgg ci am na ci ñuy wax ne na annana arabun ñun doon gënu doon ay arab rek doy nañu te loolu day daal di dëppoo ji ak la euh, lañ daan bind ci jamono yi Hitler ñu koy bindee Allemagne fawqal jamii lañ daan bind Allemagne moo nekk ci kaw ñëpp bu boobaa loolu day daal doon guerre boo xamante ne kenn du xam fu mu yemee waaye nag euh, dañ koy dañ ciy yeete rek nga xam ne islam am na beneen affaire bu ko ñor bu bokkut ak aw askan bu bokkut ak al qawmi al arabiyya bu bokkut ak xeeti race mi ngi xew lépp ci àddina loolu ay tomb la rek bëggoon a leeral noonu euh, nag bu ko defee euh, muy ñu jàll ci beneen tomb tomb bi nga xamante ni léegi am na lu ci war a déggee am am ci lu ci war a jàngee mooy tomb yonente bi ku teel ñàkk ay wayjur la. teel a ñàkk ay wayjur la te teel a ñàkk wayjur euh, daana yóbbu nit ki ci ak sànkute bu dee ci ab yar mën naa ñàkk yaru bu dee ci ku ko taxawee ba teg ko ci aw yoon mën na koo ñàkk euh, loolu kon teel gi yàlla teel a ñàkkal yonent bi ay wayjur am na benn xikma bu ci nekk xikma ba ci nekk mooy ki daan ñàkk wayjur lu ci ëpp day day néew na ku ku ko yar jàngal ko daf koy ñàkk waaye yàlla jubloo wane tawxiid bi mu jubloo yónni yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moo tax mu tel koo ñàkkloo ay wayjur ba amul ko ko yar amul ko ko jàngal amul ko ko teg ci aw yoon yàlla ni nga xamante ne moo ko bind yo fas ko yéene yónni nag féete woo ay mbiram loolu kon ab tombu tawxiid la bu ñuy jàngee foofu yi ci ne tawxiid bi mu jubloo jàngal rek yàlla feeñal na ko ci ay mbiram ba ca teele ba dara daatan xew moo tax mu ne ko alam yajidka yatiman fa aawaa wa wajadaka daallan fa hadaa fekk naa la nga doon ab ma tàppoo fekk naa la it nga réer ma gindi la te ñaar yooyu lu daan jafe la ci euh, ku teel a ñàkk ay wajur waaye yàlla da cee bëgg a wane xekk maam foofu te yonente bi mooy ngeen ji misaal ci ay teggin ak xam-xam akum koom ndax lu ci ne rek dem na ba giijal ci bu dee ay teggin ab yemukaay la ci bu dee xam-xam ab nubuwoo doy na ci ak yu mu kaay bu dee am koom yonente bi daana dem ba joxe ndoo ñeenti téeméeri gileem ci benn jotaay loolu lépp nag teewul mu daan dund ak fakkaru moom ci jëmmi boppam waaw daan mën naa xëy ci benn jotaay mu joxe ci lu ñeenti téeméeri gileem waaye teewul ci ak fakkaru la daan dund daana xëy xiif lool dem ci nekk Soxna Aïcha laaj ko ni ko ndax dara néewu fi mun ko dee wax dëgg dara néewu fi daana xëy euh, daana jëkk ba guddi mu yeewu di doxantu Euh, benn bis mu yeewu di doxantu dajeeg euh, Aboubacar ak Omar mu laaj leen lu leen génnee ñu ne ko ab xiif de lu tax a génn mun leen di leen génnee de moom a génne bi ma waxee loolu ñu ànd dem ci kenn ci benn kër ci kër yi lamsaar yi waaye bañ demee kooka am ci mbégte lool daal di wuti ab gàtt daal koy rey defaral leen ñuy jëfandiku ci waaye ba ñuy génn ab xiif rek leen génne woon te amuñu fenn fuñ mën a jëm fu dul euh, sàkk pexe kon noonu léegi danañ dégg ci li ñu jàngee woon ci melukaanu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ba tax soxna Khadija tànn ko jox ko aslëf ci marchandise mu dem saam bu mu ñëwee it ci biir loolu ci la sukkandiku ba tànn ko bëgg mu uh, féete woo ko def ko soxna loolu danañ ci dégg ni jikko yu rafet dafa doon lu ñu soxla ci ab société jikko yu rafet nii ñu ko soxla fépp lañ ko soxla ndax yonent bi euh, ci biir jikko yu rafet ci la ko soxna si tànne yëkkati àllam jox ko ci biir jikko yu rafet ak matale gu matale lañ euh, ci la soxna si jaar ba sàkku ci moom mu denc ko ci biir jikko yu rafet ci la ko nit ñi wóoloo woon ba daan fab seeni alal di ko ko dénk te booba nubuwa gi ñëwagul ñu xamee ci ni kon jikko yu rafet moom dafa doon lu lu ñu itte war ci àdduna bi ak fu nit ki mën a nekk loolu la ñu itteewoo nit ñi ñoo ko soxla ñoo ko itteewoo ko daan dénk seen i alal boobu ba muy génn di gàddaay sax dafa fab mboolem ndénkaan yi desoon ci ndénkaan yi jox ko Ali ibn Abi Talib ni ko toogal ba delloo mbooleem nit ñi seen i ndénkaan doon maa dab si dégg ca ni e, nit ki e, jikko te mooy am koolute dañ koo soxla ci nit ak fu mën a nekk nit ñi ci seen jëm bopp it ñoo ko soxla ak xaqiida buñ mën a dund bu ñu jàmm xëram soxla nañ ko bu ñu doon ay jullit soxla nañ ko bu ñu doon ay nasaraan soxla nañ ko bu ñu doon ay yaxootit soxla nañu nit ku yor jikko ju rafet pour mën a ànd ak moom danañ ci dégg ni jullit soxla nañ ci moom mu am kóolute maanaam na am sécurité kóolute ci digganteem ak nit ñi ba ci digganteem mag ñi mu bokkalul pas-pas sax soxla nañ nga feeñal euh, jikko yu rafet ci diggante ñoom ndax loolu ñu ngi koy dégg ci yonent bi mbooloom bi ñu tabaxee kaaba gi ba àgg ci di seet ni xajarul aswad lañu war a teg te xajarul aswad mooy li gën a tedd ci eh, birigi kaaba gi ñu ne kon kan moo ko war a teg ñu terale ko ko léegi bañ ne ku jëkk dugg si rek moom la ñuy àtte woon lu mu ñu doxal ko yonent bi moo jëkk a dugg si ñoom ñëpp dañoo d'accord ci ab àtteem te dara wëralu ko lu weesu melokaan yu rafet yu meloon jëkk loolu te boobu sax bokkut ak ñoom pas-pas bu waaye dañ ciy dégg ne jikko ju rafet dañ ko soxla ci nit ki rek li ñu jàngoon danañ ci jànge ne kuy woote jëm ci moo xam diine ngay woote wala ngay woote jëm ci ab tariixa wala ngay woote jëm ci ngirum politique wala dara loo gëm looy woote jëm rek euh, lim laaj mooy nga teey ndànk par ndànk ndànk par ndànk dara xëyut sotti loolu ñu ngi koy déggee ci ni yonente bi sax bi ko yàlla doon yónni daf ko jox ndigalul ni ko li ngay woote na ko woote ndànk ci suuf nga xam da doon topp ay xaritam di wax ak ñoom ci li ko yàlla yónni ñuy nangu kenn par kenn ndànk par ndànk ba ngir loolu lépp rek mi ngi doon ragal bett nit ñi ak loo xam ne xamuñ ko woon te mbetteel kooku mën na leen a indil ñu far gàntal ko bu faaw moo tax di ko xamante ne àggagul ci ñoom danañ dégg ñu ne mi ngi woote nangam dégg ñu ne mi ngi woote nangam te agseegul ci ñoom googu sax am na lu leen di jariñ ci woote bi bu agsee moo tax bokk na ci xikma si koy woote jëm ci yàlla nga ngay def étape par étape ndànk par ndànk bañ a jékki rek ni teel ni li ma bëgg day sotti mbaa mbaa mbaa addina tukki loolu du xikma kon dinañ ko jànge ci ni yonente bi sallallahu alayhi wasallam doxalee ab wooteem ci njëlbeen jànge nañ ci biir marxal boobu euh, taxawaayu jigéen ci islam soxna Xadija bintu Xuwaylit euh, sunu jigéen ñi mën nañ ci jëlee mën nañ ci jëlee leçon euh, rawatina ci jamono bii nu toll nii nga xam ni coow li bari na ci ñu naan islam dafa joxul jigéen àqam islam dafa nangam islam dafa lii dafa laa di ko tuumal tuuma yu bari bari euh, jigéenu jullit am na dërs bu mën a jëlee ci soxna sosu la ci jëkk la ci jëkk ci luñ ci mën a jànge mooy xel mu rafet tëkkuwul ci góor tëkkuwul ci jigéen ndax ngën ji mbindeef gëlëm na mu yonent bi sallallahu alayhi dem na ci xuntima ak wax yu fekk ko fa loolu loola tiitloo ko ba bi muy ñëw ci këram daf doon lox di wax ni zammi loo ni muur leen ma ñu muur ko mu lox ba lox ga dal mu wax soxna si ni ko man de damaa tiit ci sama bopp damaa tiit ci sama bopp waaye moom moo ko dalal moom soxna soosu gën ji mbindeef gën a mat ci nit ñi am xel yàlla tànn ko ci nubuwa gi ba mu jaaxle jigéen na ko dalal te ba mu ko dalalee dalal googu am na ci njëriñ soxna si moo ko dalal ni ko ni ko kalla wallahi laa yox siika allaahu abadan ni ko déedéet yow de yàlla du la gàcceel mukk ndax danga nga jokk bokk da nga berndeel gan danga fekk ku lot nga gàddu ko da fekk ku ñàkk nga di ko dimbale lépp luy xew-xewu dëgg yi da ci jàppalante ak nit ñi kon yàlla du la gàcceel mukk ci àdduna daal na ko jógandam daal di koy jël ànd ak moom ba ci ku ñuy wax Waraxa ibnu Nawfal te Waraxa ibnu Nawfal moom dafa doonoon borom xam-xamu ahlu kitaab ci la bokk doonoon borom xam-xam jël gi ko jël dalal xelam ba noppi yóbbu ko ci borom xam-xam bu ci war ba mën a xam dara képp rek moomu xel euh, dégg nañ ci ni xel mu rafet tëkkuwul ci góor tëkkuwul ci jigéen loolu luñ ciy jëkk a dégg mu doon royteef ci sunu jigéen jigéeni jullit yi ndax ab commerçante la woon moom soxna Xadija daan fàggu ba am ci cër bopp xale yu góor yi dëkk bépp dañuy ñëw ci moom muy fab eh, ay marchandise du leen ko jox ñu di ko jaayali am cër buñ ci war a am ci buñ ko jaayee ba noppi ba ci biir loolu ci la yonente bi sallallahu alayhi wa ñëwee ci moom mu jox ko ab cër ci marchandise mi mu dem dikk ba mu gisee ci moom jikko yem ci gis ci la sàkk ci moom mu denc ko kon ba tey eh, loolu ab dërs bu ñuy jànge ci soxna si ci ni eh, jigéen eh, taxuta doon ab yaafus jigéen taxuta ñaaw am xel jigéen am na rôle bu mu war a suyee ci biir société bu muy dund loolu jullit bi mën na koo jànge ci soxna Xadija ci lu dul muy dem ci ay Europe ak Amérique di ko fa jànge ci te it euh, mënees na ko roy ci xel mu rafet mi mu yor ba tànn yonente bi sallallahu alayhi wa sallam sàkk mu doon borom këram te booba day yonente bi amul daraja ndax nuboo gi ñëwagul ba kenn di ko topp amul it alal ndax ci moom la sukkandiku ci lu mu koy jox mu di ko jaay di ci am bénéfice kon xam nañ ni alal taxutoon mu topp daraja jum amit taxutoon muy sàkk ci moom mu denc ko kon loolu ba tey doon na bind bu ñu war a roy ci moom am lu ñu ci dégg nit ki Euh, jamono bu ne war naa xam ni màdd te mooy matériel bii xewle diggante ay tabax ay kër ak ay alal yu ñuy dajaleeg yooyu yëpp wasiila la war a doon te mooy aw yoon la wu ñu war a doon ngir wu ñu war a jaar ngir sàkku ji dara waaye du ab yemukaay nag boo xam ne ku ci àgg da nga war a taxaw am na leneen lu ko gën a for leneen la ko gën a for nag soxna Xadija moom la xam ba di ko sàkku ji ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam te mooy makaarimul axlaaq kon loolu ab euh, la bopp waxuma sax jigéen ñi dañ koy jàng ci moom waaye jullit yépp loolu war nañ ko def mu doon am jàng mu jàng ci soxna sos ci dërs yi ñu weesu ba tey jànge nañ ci ni nit yi jamono yi léegi ji ak nit yi jamono yi démb ñoo bokk wenn melokaan wuñ mel fii nit ñi jaar jamono bii nu toll muy dara ñoru leen lu dul alal dara ñoru leen lu dul wërsëg dara ñoru leen lu dul xëccoo ay personnalité moo fi nekkoon démb ak bëkk démb loolu danañ ko jàng ci ders yi ñu weesu ndax dara loo xam ne dana soppi seenub dund lu mu mën a doon dañ koy gàntal ca saase bu fekkee dëppawul ak seen i bànneex te mooy ni Qurayshin doxe woon ak yonante bi sallallahu alayhi wa sallam kon usloob boobu du soppiku usloobu nit ñi du soppiku ci seen melokaan du soppiku ci euh, ci ni nit ki wala boog euh, doxin wi nga xamante ni Eh, moom la yéefar yéeg ñëpp li ko wax léegi mooy mooy nit ki benn nga xupp ko bu ñëw fekk si la mbaa nga ger ko pour mu fekk si la dafa mel ne xupp ak ger mooy ñaari mbir yi nga xam ni moom la fi yàlla andi ci kaw suuf xamuñ beneen tarixa ñetteel boo xamante ni dinañ ci jaar pour sàkkoo seen i bëgg-bëgg yonent bi sax bi mu ñëwee di woote anduñ ci woote bi muy woote lañ jëkk def mooy dañ ko xupp ba xam xupp bi dana am njariñ wala déet ba mu amul njariñ ñu ger ko ger ko ci alal ak ak ngóor ak daraja waaye xupp ba amul njëriñ ger biñ ko gënoon ger ci ñett yooyu it bi mu jàkkaarloo ak pas-pas bu dëgër pas-pas ba daf koy bëmax rek mu daal ndax yonente bi da leen ni naa ci yàlla ni bu ngeen faboon jant bi teg ko sama loxo ndijoor fab weer wi teg ko ci sama loxo ngir bëgg ma bàyyi lii mu nga xam ne moom la sama borom digal du ma ko bàyyi te du sama borom moo ma digal ma bàyyi ñu xamee ca ni kon pas-pas bu dëggu ci xol Euh, kàttanam yemut ak genn kàttan ci àdduna lu dara am am am doole rek looloo ko ëpp doole lor nañ ko moom ci jëmmi boppam moom yonent bi jullit yi nga xam ni ñoo jëkkoon ànd ak moom it bundu xataal yu metti ak lor yu metti dal na leen ci islaam waaye lu lépp delluloowu leen gannaaw dañoo muñ sàkku ab yool te xam ni yàlla ñii muñ la àndal loolu ba tey ab leçon la boo xam ni euh, lu ñu war a jàngale ndax àdduna la fi jaaroon ba jàll léegi Ibnu Khaldun ab euh, historien la boo xam day wax ni àdduna jamono bu ne sa démb mën nga koo jànge ci tey tey it mën nga cee jànge ëllëg ndax àdduna ni mu niroo mi ngi mel ni ndox ak ndox niroo léegi lépp lu daloon nit ku sóobu aw yoon pas-pasu jullit te bëgg a dëggal lépp lu ko daloon ca jamono boobu ku ko sóoboon jamono bii ñu toll nii dana la dal te daloon kooku dana la dal léegi danañ la woyafal danañ la bund danañ la lor ci wax ak ci jëf waaye nag fa ñooña jaaroon ba jàll it yow mii fa toll foo ngi mën a jaar pour jàll wenn yoon wi la rek déglu leen li yonent bi wax yonent bi nee lor nañu ma ci yàlla lor joj monsieur Fouta lor kenn lor ju ni mel tiitloo nañ ma ci yàlla tiitloo ko monsieur Souta tiitloo kenn tiitloo ko ni mel daanaa toog maag bilaal fanweeri bis ñëw yoo xam ne maag bilaal duñ am lu mu des di lekk lu dul loo xam ni boo ko boo ko dugaloon ci poqutaanum bilaal kenn du ko seen maanaam tuuti la ñuy yor di ci mos ndànk par ndànk diirub weer moom bilaal loolu daanañ ko dund moom yonente bi sallallahu alayhi wa sallam yonente bi bi mu jógee màkk ak coono yi ko fa sonal ak bundu xataal yaag ñàkk donc ñàkk wujji ba mu amee jaaxale ba dem taif far taif rawati euh, foofu am na dersi bu mu nu fi jàngal dersi bu nu jàngal mooy mooy ab jullit bu pexe yépp jeexee mu xool xool xamul fu muy jaar na dellu ci yàlla yonent bi sallallahu alayhi wa bi mu jaaxlee Makka am yaakaar ci waa Taif dem Taif ñooñu raw waa Makka ci ak gàntal ba bunt yépp sakkee dafa dellu ci yàlla daal di ñaan e, ñaan gu siiw googi muy allahumma inni ilayka ashku du'fa quwwati wa qillata xiilati wa hawaani ala almaxluqin yàlla yow de laay jàmbat nii ma néewee doole ak nii ma néewee ay pexe ak euh, nii ma nit ñi woyafale loolu yow laa koy jàmbat yow yàlla kon loolu ab dërs la boobu dañ ciy dégg ni jullit saa bu demee ba gag xool bunt yëpp mu sakk na delluwaat yàlla yàlla rek moom mën a sakk ci bunt yi won ko ab bunt bu jaar jàll loolu ab dërs la bu ñu war a jàngi foofu yedd gi yàlla yaddoon yonante bi sallallahu alayhi wa sallam ci sababu abdullah ibnu ummi maktum loolu ba tey am na luñ ci war a jànge eh, ndax danañ ci gisee ni nit ki daraja bu mu mën a am moo xam ci wàllu xam-xam la walla dafa am daraja ngir diine jum am ba nit ñi réel ko mu am daraja ngir diine jooje wala daraja jum mën a am ci wàllug eh, màdda te mooy alal ak lu mën a doon lu la mën may alal rek léegi war ngaa bàyyi xel ña néew doole bay jëflante ak ñoom jëflante nit ak nit te yàlla képp tax dët sub euh, Abdullahi ibnu Ummi Maktoum mi ñëw ci yonent bi fekk yonent bi wax ak kilifay Qurayshin euh, ñëw gi gumba googu ñëw doon ak gumba ba noppi doon ak faqiir euh, xatal gim xatal jataay bi ci moom ba tax mu soppi xar kanamam walbati ko woon ko gannaaw yàlla yedd ko ngir defin woo mu def loolu dafa doon ab dar si bopp euh, ku ne rek war nga cee jëlee am njàng ndax yàlla moo def adduna euh, muy ay étape euh, ku ne rek am na ku la kaw am ku la féete suuf am koo xam ne sama morom la yéen a toll benn boroom xam-xam bu wax ni wamal maru illa wahidun min nit ki kenn rek la mën doon ci ñett ñi ma leen di bëgg a wax wamal maru illa wahidun min salasatin sharifun wa mashrufun wa mislun muqaawim ñett kenn la ci ñett ñooñu benn nga nekk ci kaw mbaa nga nekk ci suuf mbaa nga ak ki nga tollal ki la féete kaw ak ki la féete suuf ak ki nga tollal kenn ci ñett ñooñu nga mën daal ni fa ama alladi fawqi fa arifu qadrahu wa atbaahu fihi alxaqa walxaqu lazimu daal ni benn nga nekk ci kaw mbaa nga nekk ci suuf mbaa nga ak ki nga tollal ki la féete kaw ak ki la féete suuf ak ki nga tollal kenn ci ñett ñooñu nga mën daal ni fa ama alladi fawqi fa arifu qadrahu wa atbaahu fihi alxaqa wal xaqu laazim daal ki ma féete kaw damay xam dara jaam jox ko àqam ndax àq moom mu doon wa ama alladi duuni fa in qaala suntu an ijabatihi irdi wa an la malaim ki nga xam ne moo ma féete suuf it bu waxee danaa ñoŋal sama der ci tontu ko euh, ak di ragal nit ku ma yedd daal ne wa ama misli fa in zalla aw hafa tafaddaltu inna al fadla bil xilmi xaakim ki nga xam ne sama morom la it benn mu joom mbaa mu rëcc le lu mu ci mën doon bu ko defee dinaa feeñal sama ak ngëneel sama diggante moom ndax ngeneel mi ngi nekk ci ni nit ki lewete ak ni mën a jéglee ak ni mën a jëlale kon euh, foofu danañ fi jàng dar suuf ni euh, nit ki fu mën a toll ak dara ji jum mën a doon rek war nañ bàyyi xel ñi ko féete suuf ngir jox leen euh, gëdd gi ñu am gëdd ak doomu te jamono bi ñu ñu ngi dund jamono bopp Euh, daanaka nit ki boo amul ab cër ci alali àdduna kenn du ko gestu kenn du ko limaale ci dara dem nañ ba sëriñ euh, gi ñuy dund sax dañ sëriñ ba nga xam ne yorul dara nii di dund xaj ne ku ci dund tasawuf bu jëkk ga jëkk nga xam ne ñaari dërëm yoroo ko nit ñi dañ naan kooku bu mënoon a ñaan boppam lay jëkk ñaan ba noppi léegi duñ fa jaar duñ benn baat duñ la ko wax ndax dañ naan li muy woote wérul te fekk ne euh, wàllug màdd ak wàllug ruux dañoo bokkul ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa wax ni adduna euh, bu fekkoon ni dana peese fa yàlla kem laa fu yoo rek ab yéefar du fi am góoxum ndox bu mu góox alxayaatu ruuxiya te mooy dunduk ruu euh, mooy li nga xam ni mooy li nekk ci njëlbeenu li yonente yi doon woote te dafa mel ni ruu ak màdd ñaari wujj lañ yoo xam ne loo ci d'accord koo ci d'accord rek kajara du ngeen mën a def du a def moo tax ki saa bu dundalee wàllug euh, yaramam ci lekk ak naan ak nelaw xool lu rafet ak yu demee noonu bu boobaa roo gi dafay dal di gëmm waaye saa bu dundalee ak room ci xañ ko ay bànneex muy néew ak lekk néew ak naan néew ay nelaw néew ab jaxasoo bu boobaa dañuy gis mu mel ni lu rayee yaram wi waaye nag dund googu dafa gën a for jëmmi doomu aadama dañuy wax ni ñett yooyu ci lay dund mooy alxayaatu ruuxiya wal xayaatu wal xayaatul euh, badaniya maanaam nit ki ci yaram lay dund ak ruu ak xel yaram nag lekk ak naan ak ngelaw ak xool rafet ci lay dund bu dee xel moom ci xam-xam ak gëstu lu ci aju ci lay dund bu dee ruu mi ngi dund ci wàllu jaamu yàlla léegi nag nit ñi euh, dund googu ma jëkk tudd muy dund gi nga jëkk jot rek muy dund yaram daanaka moom lañ moo leen gën a ñor waaye nag dërs boobu nga xamante ni yonent bi euh, mi ngi doon wax ak kilifay Xuraysin Abdullah ibn Maktum ñëw bi mu ñëwee mu xatal ko ba tax mu mu won ko gannaaw daal di ñëkkal kanamam te yàlla yedd ko ci ab dërs la bopp waras na cee jëlee eh, njàng mu bare bare ci jamono bi ñu toll ak eh, nii eh, madda ëppe dole dunduk ruux na benn bis may wax ak sama benn xarit ni ne ko yow ni ma la gisee xaalis képp moo la ñor mun ma nag dafa ma wax la li tax xaalis ñor ma man ko mu ne ma damaa gis xaalis boo ko yoree bu dee nit ñi ñuy tudde nit yàlla boo fa demee da nga jàll nit ñi tudde nit yi àdduna it boo ko yoree boo fa demee da nga jàll te boo ko yor fu ci ne boo fa demee doo jàll rek da ngay taxaw ci diggante moo tax ma di ko sàkk bëgg ko mu képpale kooku neen li tax mu bëgg xaalis moom mooy gis na ni problème bi nit di am bépp jamono bii ci li mu gis moom mooy ñàkk xaalis waaye boo ko xasee yor jaax loo leneen la ngay la ngay ak la ngay doxee loola kenn du ko lijjanti man ko loolu mënuma ci dara ndax loolu loolu yi nga wax ni dama ko dama ko dama ko teg bët moo tax siira yonte bi jamono bu ne rek am na lu ci jullit yi mën a jànge am luñ ci mën a dégge ci seet nu ñuy dunde seen adduna ba noppi te du yàq dara ci dundub àllaaxiram wala tan si bakka mina dunya loolu mooy eh, fi ma ataaka allahu daaral axira waaye nag wala tan sa nasibaka min ad-dunya eh, mooy jamono bu ne alaxira la jiital ginnaaw bu mu jiitoo ba nag mu dolli ne waaye nag bul fàtte nga am ci àdduna ñàkk fàtte nag léegi tekkiwul nga fab seen lépp jox ko ko léegi ba tey Walid ibnul Mughira xam nga dafa ni ci biir wax ji dafa wax ni ndax Muhammad moom bu ñuy wàccee ak waaye ci moom lañu koy wàccee bàyyi ma te man maay kilifa Xuraysin di sangub sangub Xuraysin ndax Muhammad dañ koy bu ñuy wàccee ci moom la ñuy wàccee di bàyyi di ak diw loolu ba fii nu toll nii mooy dox ci jamono léegi ji waaye fekk ne ñu jël ci ñu war cee jëlee ab dërsum ni eh, ci aaya boobu yàlla wax foofu ni wa rafa'naa ba'dahum fawqa ba'din darajaatin li yattaxiza ba'duhum ba'dan suxriyyan wa rahmatu rabbika xayrun mimmaa yajma'uun loolu dañu see jubloo jàngal ñu ñu war see jàng it ni xam-xam ak alal ak daraja ak kilifteef gu mën a doon euh, ndimbalul yàlla la ak xéewalam gu muy xool ku ko neex ci ay jaamam mu xéewale ko ko waaye tëkku ko ci diw doomi diw tëkku ko ci diw ci famille sàngam la bokk tëkku ko ci diw réew sàngam la bokk ba tax na ab jullit yàlla jàngal na ko foofu lu baax li yàlla def ci nit ki mu nangul ko ko bañ ko ko añaane yéene ko ko bu dee lu baax lu mu war a jëlee mu dem jëli ko te bañ koo bañ fenn bañ koo bañ bañ a jële fenn ndax yonent bi nee na al hikmatu dallatul mu'mini aynama wajadaha axasaha léegi lu baax lu réer la lu ab jullit moom fu mu ko fekk rek daf ko war a jël kon léegi loolu danañ ci jëlee ab darsub euh, jël lu baax ak fu mu mën a nekk euh, jël ci darsub yit ni yàlla mooy seet ku ko neex mu defal ko ngëneel ci wàllu xam-xam ak alal ak daraja waaye du caagee ni nit ñi na mu leen neexee la ko yàlla itaana di ko ne dafa kon euh, loolu ders bu am solo la bu ñu war a jël ci lool yi bi muy jaayante moom yonent bi sallam ak waa Madina ci bayxatul xaqaba dafa am ñeenti mbir yu mu leen wax muy ngeen jaayante ak ni yàlla du ngeen ko booleeg dara du ngeen sàcc du ngeen njaaloo du ngeen ray seen doom kenn du fi indi aw fen u muy indi ci kanam ak gannaaw te du ngeen ma mooy ci ci aw yiw juróom benn mbir yooyu mu wax ak ñoom la ca jëkk muy al ishraaku billahi muy bokkaale la ca topp mooy sàcc la ca topp mooy njaaloo la ca topp mooy euh, ray sa doom la ca topp mooy fen la ca topp mooy ñàkk topp ndigal yooyu noonu ko yonente bi doon jaayantee ca bayxatul xaq ba nga xam ne ca njëlbeenu dina islam la tey tey tey ko gën a soxla ba fii toll nii yii nga xam ni moo yàqoon société boobe te yonente bi ñëwoon di ko defar ba fii nu toll suñu société bi léegi bi loolu li ci yàq loolu ko yàq kon jamono bu neen jullit yi war nañuy bàyyiwaat xel yooyu la ci jëkk mooy bokkaale ab jullit li muy jëkk a moytu mooy bokkaale na fab yàlla xam ni mooy yàlla lu du yàlla du yàlla suñu ba jaaxate wax ni jullit du yàlla yéefar du yàlla dara du yàlla yàllaa du yàlla moom ñoom tawxiid Sëriñ Tuubaa jàngalu na leen ko ba des koy jàng ci ñoom waaye doonuñ ñoo xamante ne kenn dana jaar ci dana topp ci seen gannaaw ba noppi di di di manqué tawhid mbaa ngi di ko néew de damay yaakaar ne sax léegi ku ko manqué la xaj na ñàkk goo ñàkk xam li Sëñ Tuubaa woote woon mbaa nga ñàkk xam ni mu yare woon ay magam moo lay dal waaw muy fii muy feneen ak feneen ak feneen waaye damaa jubloo andi misaal rek ci Sëñ Bay Jaxate ci ni mu waxee ci wàllu tawhid foo xam ne dafay tagg Sëñ Tuubaa ba ne ko ba ne ko sa fan yu ne wéy sa jëmm ji wéy ñu topp lay wéy tofal la woy foo jëm ñu wër la ngir jëm yàlla ka tax ñu gëm la ba jox la mbir yi kon koo fa mu war a teg Sëñ Tuubaa teg na ko fa te taxul luy niroo ak bakkaale gi ñu ko mën a tumaale jax mu jaxase ko foofu ci diggante bi loolu ma jublu wax rek ni juróom benn yi yonente bi doon wax ak eh, waa Madina ca Bayhatul ba tey lañ ko gën a ittiwoo ndax ba fi mu toll mi ngi eh, dox te lu yàqu ci am réew loolu ko yàq bokkaale moo ci jëkk ab jul di ko war a moytu sàcc bari nañu woyofal lool sàcc nga xamante ne lu ñu jekku rek jël ko waaw fu ñu ko gisee bu ñu gisee ñu bëgg dañuy jàpp ne léegi moom sàcc moom yàlla waxu ci dara njaaloo lu tasaaroo ray ki sax moom xaj na mm, ray moom du habitude Sénégal waaye xanaa moom loolu ñuy wax euh, planning familial nga xamante ne rek da ngay jël ay comprimés ngir wàññee ko am njur mbaa nangam nangam yëpp day mel ne day dugg ci domaine u mm, ay nit ngir nangam nangam waaw loolu damaa jubloo wax rek ne lu tasaaroo la ba jamono bi ñu toll nii ittewoon nañu ko ni ko yonente bi ittewoo woon ñu jaayanteeg moom ci jamono boobu ci bañ xatul xaq ba ci njëbbilu màkk bu kon loolu ab leçon la bu ñuy euh, soxla ci jamono bii ñu toll euh, ci jullit yëpp nag ci penku ak jullit yëpp itoo nañ ko jamono bi ñu toll. kon biñ jógee ci taayif ci ak dégg yooyu ñu dégg foofu ñu jàll ci euh, gàddaay gi yonente bi sama sama gàddaay yonente bi gàddaay gi mu gàddaay mook ñim àndal ci jullit yi jóge Màkka dem dina defu ko ngir daw loolu la ñu war a jàpp defu ko ngirug ragal defu ko ngirug naagu yërmande yàlla defu ko it ngir ni. ab tukki la boo xam ne day dem noppali bakkanam foofa ngir fii coono bi daa metti ci coono bi woote bi dafa metti ci loolu waaye gàddaay gi dafa doon ab baaraas bu dox diggante dëgg doon néewal doole ci béréb ak dëgg gu nekk ci béréb lii ba dafa ba mën a dox na mu ko bëggee dëgg gi genn nekk na màkka ñu di ko fa bund xatal di ko xatal ba la mën a dox doxu ko ñu fab baaraas doxali ko ci diggante ñaari dëgg yooyu dëgg gi woon ci màkka moo nekk ci madina waaye dëgg gi dafay woon doole ñu di ko bund xatal dëgg gee ca Madina rek daa doon koo xam ne dafaa am doole libre ba mën a wane li bëgg a wane loolu yi kon mooy maanaam gàddaay gi yonent bi sallallahu alayhi wasallam gàddaaye Makka dem Madina waaye du caagee ne daw la ci jublu mbaa mu jublu noppalu yi ci coono yu bëri yonent bi gàddaay na mook jullit yi jóge Makka bàyyi fa seen alal yépp te alal yi seen gir dund moom lañ doon sonn ngir dajale ko seen seenum réew mañ miinoon ngir fonk pas-pas ñu gëm muy yàlla miñ mi ñu gëm bëgg a doxal la maanaam ngëm moomee moo tax ñu bàyyi seen i alal bàyyi seen kër gañ mënoon naka jekk dem ci beneen dëkk di ko fa dund loolu kon waras ne see jànge ni nit ki bu yàlla fooree ci ab xolam lépp woyof ci moom ndax ñooñu mboolem alal jiñ daan dajale bàyyi nañ ko fa réew mañ juddoo woon miin ko ba doon mag jëmm it attan nañ koo bàyyi ngir bëgg a dëggal seen diggante seen borom kon loolu ab ders la bopp waras na ko ci jànge ndax foofa ca yasri ba ta mooy madina ba mu demee fa la taxawalee ab nos bu yees ci société islam bi mu taxawal nos bu yees bi mu taxawal nag xajali ko yi amoon ci diggante ki ñàkk ak ki barile ak xajali ko yi nekkoon ci diggante uh, gorsi ak jaam bi xaajali ko yi nekkoon ci diggante ki bokk ci giir sàngam ak giir sàngam yooyu yëpp foofa la seey ruy ba kenn gisutu la ca bokk foofee ci madina la yonente bi amee max naa mën a taxawal li mu bëgg taxawal ba xaajali ko yi amoon ci diggante njëg yëpp dafa seey ba amatul ñu doon ay jullit mbokkoo gépp mbokkook diine mbokkook diine la léegi ñu doxal ko doxin woo xam ni kenn mës ta gis euh, ku doxal lu mel noonu ci ci liñ xam ci taarixu taarixu adduna histoire adduna foofu ci Madina it fi la yonent bi sallallahu alayhi wasallam sosee ab arme arme islam ci muhaajiroon yeeg lansaar yi arme boo xam ne li mu bëgg a tasaare ci mbalug diine ñoom ñoo ko ñoo ko ba doole ji Qurayshin amoon armom boobu ci fatfu Màkka ñoo dam tasaare doole joojee ba foqar ci eh, Màkka ci seen loxo moo jeexal jaamu xiram ci biir jasiratul arab maanaam arme boobu mu formé ñoo jeexal loolu loolu moo tax gàddaay gi doon xew-xew bu rëy ci taarixu daawa islamiya eh, ndax dafa mel ni yonente bi nga ngañaay lim gañe ci jihaad gi mu doon jihaad ngir jotal lim bëgg a woote ngir jotal yonente gi day mel ni foofu yi la gisee ngañaay ci gàddaay googu bi mu gàddaayee la gis la am ngañaay loolu mu soxloon tax bokk na ci njàmbaare ko Omar ak xelam mu rafet ak xikmaam wax gi mu wax ni gàddaay gi dafa wax ni gàddaay gi moo xaajale diggante dëgg ak i neen kon na ngeen di def seen dati taarix ci gàddaay gi na ko ci def nga xam ne kon ga euh, taarix gi bi ñuy taarixal ci gàddaay gi Umar ibnul Xataab moo ko digle ci ak yeewuteem ak xikma yàlla tagg na muhaajiroon yi euh, comme ni mu taggee lansaar yi ndax lansaar yi nga xamante ne ñoo dëkkoon Madina it ñoo leen teeru teeru ba rafet yaatal leen bokk ak ñoom seen lépp bokk goo xamante ne kenn mësu gis bokk gi ñu mel ci euh, benn taarix ci taarixu àdduna moom la yàlla wax ne wa saabixuuna al awaluun min al muhaajirina wal ansaar walladina tabacuhum bi ixsaanin radiallahu anhum wa radu anhum mu ne ña gàddaaye woon Makka ña jëkk gàddaaye Makka ak ñi leen eh, yaatal ca Madina ak ñi leen topp ci rafetal ñun ñëpp yàlla gërëm na leen ñu gërëm ko nga xam ne gërëmul yàlla kon yàlla seere na ko foofu gàddaay it dafa bokk ci eh, yoon yi mboolem defarkat yi daan jaar mboolem ñi daan defar jaar nañ ci gàddaay gàddaay dem ci béréb bu bees boo xam ne fa lañ mën a taxawale la ñuy woote taarix li nanu ni Ibrahim gàddaayoon na jóge Iraq dem Saam ginnaaw ko waa Faris sonale bëgg koo lakk ca sawara wa gàddaaye woon na Iraq dem Saam loolu histoire nettali na ko histoire li nanu ni Moussa gàddaaye woon na Misra ànd ak ña gëm ñuy daw Firawna ak i soldaaram euh, dem euh, fële dem waaw gàddaay gën dem boru Israël histoire nett lanu ni Isa gàddaayoon na ci jóge Bayt Lahm jëm Jérusalem Jérusalem mooy fi ñuy wax Quds léegi Isa gàddaayoon na ci Bayt Lahm dem foofu loolu lépp histoire nett lanu ko kon euh, gàddaay euh, mën si na ci jànge ay dërs yu mag yi nit ki nu mu war a muñe balaa ak nu mu war a waranteeroo ci lim gëm ak nu mu war a saxe euh, ci lim gëm ba ba koo ngañaay di fekk si kon daanaka jeex na xam naa li ci des mooy gàddaay ba tey am na leneen lu muy def ci jullit bi eh, mooy beneen ci dégg ni gàddaay daw dem ci yàlla lay tege te daw dem ci yàlla képp rek saa bu kuy ab jullit defee gañe na eh, dundu matériel gi nga xamante ne moom itam day xëccoo ak yàlla doomu aadama saa bu nit ki dawee dem ci yàlla rek léegi ngañaay daal nay tàmbali am moo tax yàlla bi yonente bi sallallahu alayhi wasallam gàddaaye gàddaay googu mu tuddee ko ngañaay daal ni illaa tansuruhu faqad nasarahullah iz akhrajahu allazina kafaru sanis ne mi ngi jóg ànd ak ab euh, Seydina Abubakar làqatu ci am xunti te teewul yàlla làqatu boobu ngañaay la ko tuddee ngir daw gim gàddaay gim gàddaay jëm ci yàlla rek mooy jëmmi ngañaay ngañaay lay tekki jullit yi it yàlla def leen digal ñu daw dellu ci yàlla nee na fa firru ilallahi inni lakum minhu nazirun mubin loolu ba tey yàlla digal na ko jullit yëpp Euh, gàddaayu jullit bi gise nañ ci ne dana ko indil daluk xel dana ko indil ndimbal lu bàyyi ko ci yàlla ndax dana ko indil ndimbal lu bàyyi ko ci yàlla ndax euh, yonente bi bi mu nekk Aboubacar ci xunti dafa wax Aboubacar ni ko laa tahzan inna allaha maana bul jàq bul tiit ndax yàlla nun la àndal kon gàddaay ba tey des na ci dégge ni ab tegtal la ci ak sellal ak bëgg yàlla te sellal ak bëgg yàlla nag euh, dana waral ci nit ki mu bàyyi lépp lu yàlla tere moo tax yonente bi ne al muslimu man salima al muslimuna min lisanihi wa yadihi waaye nag wal muhaajiru man hajara maa nahaa Allaahu anhu daane waaye kii gàddaay nag mooy ki fekk li yàlla tere mu gàddaay ko loolu moom mooy kii gàddaay dëgg dëgg dëgg dem ci yàlla euh, jamono bu ne yéene ju sell moo ko war a lal mbaa du doon gàddaay gu jëm ci yàlla ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam na fa man kaanat hijratuhu ilallaahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallaahi wa rasulihi képp ku te bu ngay gàddaay nga yéenee gàddaay dem ci yàlla ak yonentam gàddaay googu yàlla ak yonente bi danañ ko nangu waaye nag wa man kaanat hijratuhu li dunyan yusibuha aw imraatin yankixuha fa hijratuhu ila ma haajara ilay waaye koo xam ne bi ngay gàddaay addunaa la tax di gàddaay mbaa jigéen joo ba a takk moo la tax di gàddaay la nga jóg ngir ba ngay la nga jóg ngir moom rek moom nga ca amee leneen andi woo ko ci kon gàddaay jëm ci yàlla laaj na yéene ju sell yéene ju sell jooju mu laaj moo tax biñ demee ba fatxu Makka am te boo jógee te fii di gàddaay di dem Makka it foofa dëkkub jullit la rek jaratul gàddaay moo tax yonent bi sallallahu alayhi wasallam ni la hijrata ba'dal fathi walakin jihaadun wa niya ginnaaw ba fata Makka amee gàddaay amatul li fi des mooy jihaad ak am yéene ju rafet kon foofu ab yemukaay la ñu taxaw fii ci liñ ci déggee euh, yam ak foofu yéen ba beneen yoon kon ñu dugg ci marxala madina bi euh, wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu di ñaan bokk ci yëpp nag ak dégg ak topp njëriñ